من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وموالاه وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المصطفى لبن القدوس مدرسة بها يزول الأذى والجهل والكمد بقيت دي لن نيو لن زيارو jiital ci nuyoo bi saaxibul fadila ak Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan suñ borom mu yàgg fi loolu tànn ko wér waaye ziar bu baax ak a ñaanal njabootug suñ Tuubaa yëpp mbokk yi tey jii tey juróom benn fan ci weeru février di bis bi nga xam ne ci la Cheikh Mouhamadul Muntaqa tànn muy bis bu rëy ci moom moo war cee tàmbali liggéeyub université bi nga xam ne moom la suñ Tuubaa mébétoon boole ko ci ay mébétam yi nga xam ne moom la fi bàyyi ginnaawam mu eggaleel ko ko tabax ko taxawu ko ba mu egg. tey jii nag mu fas yéene tàmbali njàngam incha allah ci altine jii di juróom-benni fan ci weeru février tey jii nag di yëpp daje fi taalibe bi Sëñ Tuubaa yëpp daje fi waaye adduna bi yëpp daje fi waaye réew mi yëpp daje fi ngir lan ngir jàppale Cheikh mu Mountakha ci mbégte mu réy mi nga xam ne mbégte féete wu ko kaw ci moom ngir eggale gum eggale yéene Sëñ Tuubaa nga wax naa léegi ne Sëñ Tuubaa moo waxoon ne bil Mustafa libanal quduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kamadu moo dafa wax ne ci barke Mustafa suñ borom tabaxal na ma daara joo xam ne ci daara jooju yazulul aza ci la lor di jeexe al jëxlu muy réer ci lay jeexe al kamadu muy njàqare ci lay jeexe kon tey mën nañoo jàpp ne lor jeex na njàqare jeex na ak réer jeex na seex ma Cheikh Ahmadou Mountakha taxawal na yéene Sëñ Tuubaa ba eggale ko tey nag loolu moo ñu fa dajale moo tax ñu fas yéene ànd ak yéen incha allah ci couvrir bu matale boo xam ne dañuy ànd ak mboolem journaliste yi nekk Tuubaa yëpp ak mboolem presse Sénégal bi yëpp incha allah fas yéene àndandoo ngir def ko ni ko Sëriñ Muntaxa bëggee moo tax na ñu fas yéene def ay reportage yoo xam ne dañ koy dem ci kilifa yi di leen laaj niñ taxawee ci bis bi ak seen yëg-yëg incha allah ci lañ jëm ak yéen incha allah ci kanam tuuti bisimilah. ñu ngi dee toog ak sëñ Souleymane Diop bokk ci kilifa yi nga xam ne ñu yor culture bi ci wàllu isparxia mu jëre njàngum alxuraan mi ginnaaw bi ñu la nuyoo Baye Souleymane ziyaara bu baax ci bis bi di la ndokkel ci mbégte bi nga xamné mo la mourid yépp am ak taalibe Sëriñ touba yi ak mbalam jullit yi ci liggéey Sëriñ touba bi nga xamné ne Sëriñ égalé nako té ko te ji ngi leen fekk ngeen jang alcorane ñu bëggoon nag say cadeau ci walu taxaway bi ngeen taxaw ci walu culture bi inshallah ak njàng euh ñoo ngi sante bu baax baax Sëriñ touba mi ñu ak Sëriñ Muntaxa ñi ngi fi ci biir université bi di jang ay kamil bin xëyeeg léegi jàng gum na lu mat fukki kamil ak juróom ñi ngi tambali 8 h moins ñu ngi fi di sant yàlla bi nga xam ne nag euh, moo ñu booleeg sëriñ bi ca sëriñ bi léppam di alxuraan mu defar kër goo xam ne kërug alxuraan la ñu fi jàngale alxuraan di ko mokkal di ko tari kon ku fi nekk ngi di jàng alxuraan def nga li nga xam ne moom la sëriñ bi digale ñi ngi ñaan Seex moom lu taxaa mi nga xam ne moo sos lii yàlla bàyyi ko fi may ko fan wu gudd waanu ko wér ci barkeb sëriñ Touba. yàlla dimbali ñu ba mbooleem li ci wut ñu taseek moom ci njëriñ barke Seexul Xadim ci wàllu liggéey bi bi nga fi ñëwee ban yëg-yëg nga am ci taxawaayu liggéey bi ak gaawaay bi mu gaaw ak contexte bi ko sëñ Mountakha santaane muy comme si Covid 19 loolu lépp teewul murid yi réalisé lu toll nii 37 milliards yëg-yëg boobu. loolu itam du lu doy kéemaan loo xam ne weesu na am xel ndax sëriñ bi dafa jubóog boroomam. ba ñëpp xam ne ne sëriñ bi daana sëriñ Abdoulaye daana wax ne sëriñ bi daawut santaane dara lu weesu bis bi mu ko santaane lépp lu mu santaane rek lu mën a am la mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñoom itam li ñu àndoon woon moom mooy luñ ko lu mu santaane lu jamono xat-xat loola daan ko def lu mu ko bëggee loola nag ci lii rek la bokk kon ñi nga ñaanal sëriñ Mountakha bi nga xam ne moom la yàlla dogal mu tàmbe ak moom yàlla defal ko fan wu gudd waanu géram naal yi li muy di jaxasoo jaxasoo ñu ngi ko tàmbali ci xat jamono waaye yàlla ak barkab sëriñ bi tax na li ñu ci réalisé kenn xam ne raw na am xel. jërëjëf jërëjëf Baye Souleymane jërëjëf jërëjëf ñu ngi lay ñaanal suñu borom yàgg la fi ngeen ko xamee ñu ngi fii ci université bi tey di juróom-benni fan ci weeru février bis bi nga xam ne ci la sëñ Mountakha wala ubbi daara ji nga xam ne mooy daara sëñ Tuubaa ji ñu ci limaahin basirin bil Moustapha Libana al Qudus madrasatan biha yazulul aza wal jahalu wal kamadu sëñ Assane ñu ànd ñu taxaw ak yow nga bokk ci ñor wàllu culture bi ci wàllu istarxiya bis bi nan ngeen ko waajale ci wàllu culture sëñ Assane. dinaa boo nuyoo jërëjëf sama sëriñ maa ngi lay siyaare bu baax di nuyu ñi la bàyyi xel bu baax. di ndokkeel eh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké di ko ñaanal gudd fan ak wér eh, di siyaare bokki jullit yëpp di sant bu baax ci bis bu bii nga xam ne bis bu màgg la ndax jëf ju ji nga xam ne Eh, sëriñ bi jëf na ko eh, bi nga xamee ne jot nañ digale itam jaare ko suñ jëwriñ sëñ Youssou Diop eh, ñi nga xam ne ñoo yore wàllu activité culturelle ci daara ji rawatina kuréelu xasida yi am na ay tëral yi ñu ñu tëral niñ ko tërale mooy jokkoon nañu sax fédération yi nekk fi nga xam ne ci Touba lañ nekk te bokkuñ ci tarxiya waaye ay jànkati xasida lañ ñu am ci li limu junni nit ñoo xam ne dañ leen fas yéene tey jàngaloo ay xasida ngir eh, màggal jëf ji ak réyal ko ak eh, wone dayo bi nga xam ne am na ko junni nit ñooñu nag eh, bokk na ci programme bi mooy danañ jàng ñett xaside yi ñoom ñëpp àndandoo ko mooy xasida ak li maahin bashirin nga xam ne béyit bii nga wax ci sëñ Touba wax ci ni ko sunu borom tabaxale ab jàngu bayit bi ci biir xasida googu la nekk junni nit ñooñu tey dinañ ànd jàng xasida googu ba mu jeex tàkk ñoo koy àndandoo jeex ba jeex jàng ko ba mu jeex tàkk loolu yaakaar naa bu 10 heures gis ne mi ngi tàmbale bu loolu jàllee xasida ak mawaahibu it nañ ko ànd ñoom junniit ñi ñooñu jàng ko ba mu jeex tàkk bu loolu jàllee bu sëñ bi dugg si waaj nañu xasida ak busra la naa muy xasida ak mbég xasida ak cant ngir gàttandu sëñ bi kañ ko eh, ñu xam ne nag jëf ji dafa rëy taxawaay bi dafa rëy loolu itam eh, yëmul ci Hizbut Tarqiyyah rek kuréel xasida yi nga xam ne yëpp ñu ngi ci dëkk bi eh, jokko nañu ak ñoom ba coordonné ba nga xam ne boo ñëwee fii di nga gis kuréel Hizbut Tarqiyyah waaye di nga gis leneen ni ko organisé it nam ñoom mooy fexe nañ ba kenn ku ne ñu jox la xàmmeekaay mooy badge boo xam ne day wane ne kii eh, jànkat la ñu jox leen mbaar mu mag moo xam ne ñoom kese ñoo fay nekk eh, kenn ku nekk itam ñu ne la solal lu weex loolu dara lañ ci jublu lu dul rek màggal bis bi ak eh, wane dayo bi nga xam ne bis bi am na ko kon yaakaar naa ne foofu daal lañ tolloogum ci ci programme bu si kanamee léegi da gis ñu organiser leen par ay cercle su ko defee bu waxtu bi jotee rek moom njàng moom day tàmbali dootul taxaw ba ba sëñ bi di agsi. macha duñ taxaw yow te laajuñ la ci liggéey bu am solo bi nga xamee ne. sëñ Mountakha taxawoon na ko. te liggéey bi li ci gën a yéeme mooy contexte bi mu tollool. waaye loolu euh, day mel ni sëñ Tuubaa woonante na boppam ci wàllu woowu. ndax Covid bi la tolloon. lu met 37 milliards. ñu lancé travaux yu toll noonu. ci diir bu gàtt bi ñu mën ko réaliser. loolu tam. waaw waaye a Euh, sëñ Abdoulaye da doon wax ne euh, xol yu nangu moo gën mbéy mu nangu te nee na xol yi nangu la sëñ Touba euh, kon liggéeyal sëñ Touba laajul contexte la mu laaj mooy xol yu nangu te bu jógee rek sëñ tubaa tax murid ji seen xol dañ koy nangu ñu def ko seen benn liggéey nañ fàttali ko la sëñ bi waxoon ci ba mu koy wootee nañ koy yëkkati bu mu laal suuf. ñu koy doxal waaw kon yaakaar naa ne yitte jooju la ko la ko murid yi fekk see moo tax lii ci diir bu gàtt nga gis li nga xam ne murid yi def nañ ko te déggoo sax coow yàqalu leen bisub màggal yàqalu leen ak cant yàqalu leen ab ziar waaye kenn ku ne dañu xam ne day naal bu mënta ñàkk moom nag ku ñu war a kañ la sëriñ bi ndax euh, moom rek lañ gis ci àddina kenn nit ànd ak mbooloom financé ab université euh, loolu itam dalay woon nag moom fi mu teg xam-xam te jëlu ko fenn fu dul ci Serigne Touba Serigne Touba dafa fonkoon xam-xam ñaana ci dëkk bi sunu borom mu def ko dëkkub xam-xam adduxooka an tajxaloo daara tuqa wal xilmi wa diini wa daara lirtiqa daa mel ni Serigne bi gis-gis boobu la am kon ñoo ngi koy kañ bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal kattan euh, mu dund ba doon kéemtaan ci àddina loolu yaakaar naa ne ak cant la euh, te di ko kañ àddina sépp xam nañ ne gisin bi mu am ak taxawaay bi mu am Euh, gisuñ ko feneen loolu nag mbég la ci ñun ñi nga xam ne euh, moom lañ yaakaar ci topp ci ginnaawam jërëjëf sëñ Assane duñ la taxaw duñ la taxaw loolu yàgg ndax xam ne yaa liggéey bi waaye li kàddu yi nga xam ne xam ne ñooy mhm. a sàmmonte nag euh, ki ki ki ki liggéey liggéey bi royuwaay la sëriñ bi royuwaay la ci ak taalibe royuwaay la ci bëgg sëriñ bi royuwaay la ci teey royuwaay la ci yaatu royuwaay la ci yéene ñëpp lu baax loolu itam yaakaar naa ñun ñi fi ñëw Euh, loolu bu ci jiitoo rek li si des dina yomb incha allah ñoo ngi sant bu baax jërëjëf sëñ Assane Diouf ñu ngi lay sant baax di la gërëm macha allah bàyyi la nga dem ci liggéey bi kon mi noonu ci kanam tuuti incha allah ñëwaat ak yéen ci beneen jotaay jërë ngeen jëf